baax a baax ah, sant leen gërëm leen itam ci taamu gi ci seen chaîne leader Sen TV dal leen ak jàmm kon ci matinal bi ñu di ci ànd ak saa su ne comme d'habitude ah ak monsieur le maire de la ville de Guédiawaye ànd ko ak son premier adjoint le médiateur waaw koy mi ngi noonu ah, ñu di la nuyu monsieur le maire. fay naa la bu wér. ñu ngi lay siyaar bu baax a baax. tey moom ah. xol daa gisee maa ngi yow fu danoo xaw a. maam Sidi PNP. maa moom dañoo xaw a fu ñu génn moo xaw daa xaw nooy daal voilà merci xaa yaam ci ko dégg séeréer maam si di jaajëf damaa kii yoon sax da nga dañu koo tuusi waaw <laughs> ah, boo takkoon karawaat dañoo tuusi ay yére dañoo tuusi ay yére nga dëgg de dañoo tuusi yére waa ci loo ne jaba sant maa ngi nii rek naka foofu démb fan la woon démb hmm. euh, démb amoon na benn huis clos nag huis clos ah. waaw waaw démb gisee naa ak Malick Gakou abo ah bon waaw. ah baax nga ma ko. bu baax. ah. fa laay ndékki sax. nii fii nii leen nekk ci ginnaaw. ah wax nga dëgg mer moo soriwul. wax nga dëgg moom moom tonton pourtant <laughs> ñoo bokk fii. boo ko duñ gisee sax. ah xaw kër tonton moom naa koy romb rek. kon ma daaxu. kër moom seen tali boobu. Eh. naa ah en <laughs> tout cas Malick yamal ci dëkkum Mermoz rek. waaw boo boo gisee tonton moom ma dàq la ci ci kii bi ci ci pare. pare pare. <laughs> non. ci directoire de kii non wala yow ñu dàq la. kat <laughs> yow. <laughs> ah Malick Gakou moo mën a gën a. yee Malick Malick Gakou yaa dàqu yàqu yow mun. sa premier adjoint. non lijjanti premier adjoint yomb na boo fi jógee rek deuxième bi ñëw wala ñu defaat beneen élection. waaye directeur de campagne. yombul yombul yombul Gakou. man de sama dàq kon moo gën a. moo gën a jege nag sincèrement. kii kay ku ne mën naa génn ba mu des Gakou. kon nag Marème moom day mujj génn moom. kon non Marème moom génn moom day génn moom. Marème moom kon kon gàkk sama intérêt mooy ñu baal. waaw waaw kay nga nga nga. sama ma ko. Ah, <laughs> balaa ci may tax moom booy wax ak gàkku sax léegi nga génn. <laughs> waaw dama lay mujj génnee de. ñu ngi nuyu Malick Gàkku El wala war de. waaw kii léegi ma génnee la de moom. di yii baa mu ko moom mooy. sunu moom mooy sunu directeur de campagne moom même nii sax bu ne ma génnee leen ma génnee leen. di leen kay. waaw sponsor yëpp kay. Kayda Njong daal laa fi xaw a xaw a yërëm rek xam nga ak li yooyu rek li muy dund dafa metti mais ñeneen ñi des euh. gàkku bu ne ma génnee léegi ma génnee leen <laughs> Marème Faye sax bu ne ma génnee ko ma génnee déedéet kay dama koy génnee léegi ah Marème ban intérêt la am ci sponsor yi. waa gaa ah, man maa xool rek xam ne APR mënul ñàkk kenn rek. waaw waaw nga dugg te ñoom comme que dañuy xeex man ma jël ko moom. dugal ko sponsor waaw dëgg la. ñoo dañuy xeex mais tonton nag joyeux anniversaire tey la anniversaire tonton. déedéet kay président Macky Sall président de la République voilà. le 11 ah, ah, décembre 1900 voilà 61 waaw 1960 portable bi daal moom xam naa ne bu dee bëgg na ko moom man mën naa koo

moo ma jaaxal xolal xolal ku ñu mën a woo ñu souhaité ko happy birthday ah maam Sidi buñ ko teeloon yëg addi gato bi kay ah waaw waaw très bien xoola maam Sidi fu mu génn <laughs> happy birthday à notre président de la république. c'est que tonton dafa mën a ñàngal de. waaw mais oui ma daa ñàngal. xaaral xaaral maam Sidi amoo photo bu mu mën a ree. déedéet bii baax na ah, baax na ah, ah, bii baax pourtant kanam gi fas na kanam waaye diisu <laughs> ña bokkul ak boobu mu def nii. ah waaw waaw <laughs> de dara xewul de eh, dañuy souhaiter joyeux anniversaire à monsieur président à la télé merci. kii kan la. merci beaucoup ministre Mame Mbaye ah, merci ok ciao waaw joyeux anniversaire waaw xalaataatal keneen. Euh, waaw kan la waay. dégg nga Mame Mbaye Niang ah mais c'est le cabinet nga dëgg. waaw mais da nga wax mu yeggee ko ko nag. waaw non ah, la dina ko yeggee chef de cabinet moom sax mi ngi seetaan. non moom tonton ñoo taxuloo bureau kay xanaa dina ko wax. léegi ak kan. sax mi ngi seetaan. attends tey moom suñu anniversaire. non non xaaral xaaral a leer rek moo woo ñoo xam ne dañu nekk ak Adja. ku jigéen ki waaw <laughs> su ma bi mu ko teeloon yëg fii laay àdd gâteau bi te force dafay ñëw. mu dagg gâteau non non non tey la. moom laa daanelee revue de presse. ah jëf waay. laa ko daanelee tey. Ah, mais tey war na neex ne tey tey tey ci ah waaw. non damay xool ñan la <laughs> ñii nekk ak Adja <laughs> allo. waaw yaay anniversaire à le président de la république dégg <laughs> maire nel waaw rek yow voilà voilà maître Nafissatou Diop Cissé la ok joyeux anniversaire maître wax ko Adja wax waaw ñu ngi ko ñaanal jàmm nag yaay yooyu nag ñun ñun ñi taxaw ci télé bi kay ba di ko souhaité joyeux anniversaire kay ah. waaw waaw kon kay jeex na jeex na jeex na waaw kay jeex na. na. waaw ah à tous les collaborateurs. non jeex na président Macky Sall ah, lii ma def tamit xam nga ne rafet na. non lii moom lii ah, moom lii moom. woo naa son chef de cabinet. woo naa ñi nga xam ne ñooy ànd ak Marème Faye. ah waaw a rien à eh, bi dafa riche waxal ma woo kon bun jon ma woo bun jon wala kan bun jon eh. wala jël non boobu day day <laughs> day diis boobu day diis moo <laughs> day diis ma woo kan waxal waxal waxaatal keneen wala baax c'est bon ah, c'est bon 38 jot na ok xam nañ répertoire bi lii na yee téléphone bii li fi ne <laughs> yaay monsieur le maire rek mais li nga def rafet na nag mais ñun est-ce que duñu woote palais wala jaru ko palais waaw bu la neexee de yow de loo loo def moo gën loo deful ah. waaye li nga def rafet na de xëy rek daan souhaité joyeux anniversaire président de la république lii sama yaram sax da ciy daw. mënoon nañoo woote pale nag. ah mënoon nañoo woote pale de. xam yeewu nañu. pale de la république. waaw wala loolu day ëpp. waaw ah waaw ah, ah, ba tey nga woote rek de <laughs> en tout cas chaque année président day woote. pale de la république. <laughs> nee na bisimilah de ba <coughs> kii kan la yow <coughs> sañoo fee woo tonton <coughs> répertoire bii daa riis nee na su non non il faut moo woote fa déedéet kay woote non non non il faut ñu woote fa <laughs> joyeux anniversaire salaamaaleykum waaleykum salaam euh, palais de la république ah? voilà man la Ahmed Aïdara Sen TV dama doon souhaiter joyeux anniversaire à monsieur le président. oh maa ngi nii rek merci dégg nga <laughs> waaw jox ma pale waaw. répertoire Mayris aywa ah, monsieur le maire. jatanga tey tey. Eh, nañ dem nañ dem nañ dem. <laughs> président loolu duñ jox de. <laughs> baax na buñ paree dem ab dem dagg ci kaso <laughs> waa kii kan la tamit anniversaire tey bi tey lay riis de allo. oui allo. waa kooku allo. privé la de. privé la ah waaw privé la de. tonton la. ah est-ce que lu tonton. <laughs> koy waa Palais ne leen xaaral ma jox la Palais. tonton ne mu rappelé la. aca aca aca aca. maam Sidi aca aca maam tonton na woote direct. non a woote. est ce que néew li mooy woote nii. moom la nga na nekk moom de. Ah, en tout cas daal souhaité nañ ko joyeux anniversaire gudd fan moom tonton Macky. waaw di di ko di ñaanal yàlla nag yàlla guddal fanam. waaw oyof ak projet naal yu mu bëggal naal Sénégal xam nañ ko yàlla na ko sunu borom sottal ay ca amiin amiin tawarkalla rafet na rafet na tribune yi rek <laughs> man damaa waar voilà yàlla yàlla ëlbati xel bi mu daal di wàññi nag euh, courant bi bàyyi itam ñoom kii Mari Sagna ñu daal di kon ñibbi ak ñoom Babacar Diop wallaay wallaay loolu la du noonu ah ñaan ah, gi loolu la di dund gi kay wàññeeku la ñuy ñaan dégg nga léegi tribune yéen kaay ñëw ak ñun ci eh? front social bi front social bi ak ñaxtu gi àjjuma ji ñëw mais jàppal xam nga coow li mooy lan est-ce que nit ñi danañu dem dinañ génn c'est ça le moo yéem nit ñi. gars yi woote gi ñuy woote dox ñaxtu yeeg dugg na fi génn fii te gars yi du ñu génn jarbaat loolu moo jaaxal nit ñi. moo yéeme na de. mais nee nañu bii mën naa am changement. waaw waaw SAES. SUDES. maanaam étudiants yi ñëpp tabarkaaw mouvement ma am na sax bu bees bu génn. bu bokkul ak aar la ñu bokk bi. Ah. maa lànk bi. waaw. dégg nga bañ waaw source a ñëw ak ñun ci ñoom kii Mari Sagna hmm, lu ñu wax xam nga bàyyi nañ seen grève bi hmm. maître Moussa Sarr moo fa jaar xiifal gi waaw réew mi quotidien nañu bàyyi nañu seen xiifal gi nga xam ne kon moom la ñu nekkoon 24 heures yéeni kaay nañu hmm. gis nga cinq milliards yii nga xam ne dañu koo génnee joxe ko ab haut fonctionnaire ci programme de défense des intérêts économiques et sécuritaires looloo jaaxal waa forum des justiciables dafa war a Hmm. mais juróomi milliards yooyu ban fonctionnaire lañ ko jox. c'est ça en fait. chèque bi ñoom Babacar Diop Babacar ba nee dafa war a leer. daa war a leer exclusive yéen kaay ñëw ak ci. Hmm. Cissé Lo de ak doomam ji Cissé Lo Junior de nga attaqué yaa xamante may. moom kay taa yaa kan. <laughs> ah journal bi la de. non libération. <laughs> exclusive laa wax maa yow kii. Eh, ana exclusive. maam Sidi. jox ñu libération yéen kaay ñëw ak ñun ci. Euh. dossier Bougazelli Seydina Fall. libération waaw. waaw Seydina Fall daal en tout cas daal. 18 ay bagages yoo xam ne kon sële nañ leen takk leen. Mm. mi ngi ci loxol buur. Oh. bokk na ca benn clé clé USB boo xam ne nag moom ca la bomb ya nekk. Eh. enquête yéen kaay ñëw ak ñun ci makki Sall ak la politique du sabre. yat la yor léegi. mooy Macky dañoo seetlu ne bi mu toogee ak léegi ni le. rëq ndig rëq ndig rek. <laughs> rëq ndig rek. léegi ko yéen kaay ñëw ak ñun ci Aminata Mbengue Ndiaye. Hmm. gars yi dundalaat nañ Tanor Dieng démb de. waaw waaw wallaay yaram daw de démb de. wallaay wallaay nañu. Hmm. Kan Sékou Mballo. Kan waaw moom. deux cent cinquante familles policiers yoo xamante ni fi mu nekk nii ñu ngi ci guddi gu bët setagul. dañu eh! génn de. waaw waaw waaw waaw jox nañ leen àpp kay. waaw waaw waaw mais tribune yéene kaay nag li mu xamle mooy. Hmm. Kan Sékou Mballo boobu. mais xam nga benn pàcc bi dañ koo jox ay chinois. waaw mais presque toll na ci 4 milliards. ak 5 milliards yi scandale bi 9 milliards la. il a juróom-ñeenti milliards. ci mille oui oui critique yéen kaay ñëw ak ñun ci Ousmane Tanor nga xam ne fi nekk nii moo teree ne la waa au conseil. ndeysaan Aminata Mbengue Ndiaye ne c'est normal. neexul ah. remplacer. waaw waaw <coughs> Tanor. waaw waaw billaay banque bu mu wàcc moom. wala nga xam ne kon dañu koo dekkalaat. ndeysaan Sud Quotidien ñëw dialogue politique bi. Hmm. liggéeyu comité technique bi suivi ak auditu fichier bi ak évaluation processus électoral en tout <coughs> waxtaan ba juboo daal rek le quotidien yéen kaay ñëw ak ñun ci fin d'année bi de cadeau dana am secteur privé xanaa ñun nañ ca bokk augmentation salaire ci waaw cinq ah, huit pour cent cinq ak huit pour cent <laughs> lii lañu <laughs> lii la ñu wax oh. lii la ñu wax lii la ñu wax évidence hmm. yéen kaay ñëw ak ci Déthié Fall digganteem ak Mamadou Talla ministre éducation nationale xamal na ko carrément daal ne ko dem leen ngeen recruter yu ay ay jàngalekat ah delloo leen wàllu njàng meeg njàngale mi place ba mu nekkoon ah looluy dëgg ah ci yi nga xam ne moom la réfugié mauritanien yi di dund hmm. miti na miti na torop industrie extractive yaa ngi nii hmm. alal ji génn ci biir suuf téeméer ak ñaar fukk ak ñaar ci ay milliards lay génn 2018 bi moom la génne mi ngi nii Dakar Times ñëw ak ñun ci hmm. diggante Ndakaaru Njaay ak Doha Sénégal Qatar. joxante nañu loxo. Hmm? ña ngay dox dox ba. na ngay dox <laughs> comme Karim léegi mu ñibbisi. <laughs> kan ah Karim. ah Karim waaw wax dëgg <laughs> daaw rek ñibbisi nag. ah Karim Karim dey. mi ngi noonu Karim Wade dey. ah ndey Karim. maam Sidi ana Oja ndey Karim Wade li muy def ci bitim réew. moom a ma jaaxal ñëpp. ah moo jaaxal buñ pale buñ paree woote waat léegi nii pale. pale kay il faut ñu woote fa moom. pale moom tey tey moom jot mbaa dee rek. daal tonton woon na la nga. tonton ngi nii ñu wër. MMA. lee <laughs> il yaa xam ak Cissé Lo. ak Cissé Lo Junior. Cissé Lo Junior ci ginnaaw li si mën Oja mii. nee ko MMA mixed martial art. waa kan mooy arbitre bi nii. tonton xanaa. eh. borom anniversaire bi la nii. nee ko arbitre bàyyil ma dóor ko direct bàyyil ma ko direct. eh Cissé Lo Junior. nee ko bu père bàyyil ma faytal. non. ci Oja. lii de moo xew ci mi moom. waaw lii rek fi xew de. waaw si sa loolu tax ci digg lii. ay ndomba xalaat ay ndomba la takk de ak koll wi. <laughs> non on dirait on dirait. non. Oh, doy na waar. ay jël mi ngi ay wa jarbaat. Ah, euh, audio bi nañ ko ko ci tribune. voilà euh, anniversaire bi xam naa day woy ci. waa anniversaire day continué. waaw ci rajo bi incha allah 89.7 foofu moom. comme que fii télé la garaawul foofu na nga woo na nga woo. foofu ay woote direct la. tonton woon na la nga coupé ko. yéen privé bi moom la. dara privé bi moom la moom la. moom la de tonton eh, la de. nga yàqal ñu nii rek. ñoom moom boo fa wootee moom. <laughs> am sa numéro de su numéro baa nga fa de. man li ma jaaxal da ngaa woote da ngaa woote. coupé rek woote waat. non non woote pale ñu ne xaaral ñu paas la ñu passé ci biir waa ci biir. cabinet ba la cabinet ba. tonton. non nag ndaw nag sincèrement maa ngi koy doogay <laughs> man maa yey jël premier adjoint bi. <laughs> ok. <laughs> waa APR yi nañ ñëw ma wutal audience. mais c'est ça en seen responsable yi kenn daa mën a gis tonton. mënuñ koo gis ñu mënuñu koo gis mënuñu koo gis et yoruñ sax numéro yi. alhamdulilah APR ba ma doon doonee premier adjoint alhamdulilah kay na ma dimbali bu ma indil délégation spéciale na ma sutura. <laughs> non yow moom kenn du la délégation moom pour mu combattre la dafa yomb trop. <laughs> aja tës bi ñu la foofu. la politique du sabre. Ah, facile. di dóor rek. <laughs>